di rafetlu si seen teewaay li boo gisee sax gars yi organisé ko tey parce que aski pare dem police yaakaar naa ni doo rey doomu jàmbur ba pare continuer di nga créé nga nga nga def nit ki benn góom ba pare continuer jël jël bant wala nga jël leneen di ko remuer ci góom bi mënoo rey doomu jàmbur yaa ngi ñëw di interpeller des jeunes man Ahmed Taya mardi passé parce que dama waroon dem Ziguinchor le mercredi mardi passé laa ko romb ci seen café bii moom nee nga jël ko pour mu wax parce que gëjoon nañ gisante quoi parce que man dama dama nekkoon di di def ay voyage yu bëri ba ñu gisante gëjoon nañ gisee ma romb ko sama moto ci la ma yuuxu e eh, laayee ma gaare ci laa gaare noonu ñu ñëw saafante mu ngi soloon pile bi pile bu ñu ko rayee man pile boobu laa ko sol te loolu c'était juste avant ñu coupé euh, euh, avant ñu ñu di ndogu mardi bii passé te ba ma ko tàggowee mu jox ma numéro ma jël numéro li ma ci bind sax jaruma ci bind tur maa ngi toog ci kaw moto dafa ma jox numéro ma bind euh, ma ne ko après nañ déggandi si la dem Zik ba ma demee Zik 3 4 jours ma ñëw Euh, dimanche ñu koy voté euh boy gi ñu ngi doon calculer résultat parce que xam nga ñun benno lañ bok euh ci lendemain bi ci lama boy né amé Ahmed Taher décédé. d' accord bi lan la actuellement. xex bi ñom dañu ñëw di leen interpeller parce que ñu nek des jeunes yo xam ne d' accord bi actuellement ni parce que police dem génne nañ def ben conférence de presse di di di jéem di jéem justifier sen acte ni c'est légal or que c'est illégal waro ñëw fekk ay jeunes yo xam ne leen di interpeller di leen saga brutaliser leen japp leen ñetti nit tak leen duggal leen ci ay auto kenn ki daw nga jël ñaar ñi yobu technopole le commissariat la. bëgg ñu taxaw ci nous Les sont déterminés ñu fait. parce que nous nous avons bëgg bëgguñu justice. am nañ confiance en justice c'est pourquoi ñu ñëw conférence de presse bi pour wax procureur de la république qu'il se saisisse sax pour euh, enquête ñu parce que même corporation là, ay policier lañ xam nga li ci xew ak dem liñ jotat ki diko di boy pour justifier seen acte loolu nak du jall buñ ci insister ñun tamit on va aller on va on va continuer dans notre dynamique moy xex pour ñu am justice té lu mu war té lu mu laaj gars yi dinañ ko def budé walum xex dinañ ko def budé walum walum walum walum wàllum dinañ ko def euh, Daouda Gueye léegi wax na ko nee na euh, on exclut pas def ay sitting def marche aussi organiser marche wala rasa grand rassemblement au niveau de la banlieue té tamit euh, bavure policière yi ni ci problème ci ci euh, ci problème bi ni lañ ko wara éradiquer une bonne fois pour tout euh, Sénégal. d'accord une bonne fois pour tout jërëjëf di rafetlu encore une fois sen taxawaay yeen ñëpp. di leen wax aussi li ku ko wara jot nako jot. ngeen jàllale ko parce que tamit bëgguñu ko euh, affaire de fayantoo am parce que je ni ma gis ni il n'exclut pas ñu dem saccager police bi wala policier buñu japp ci mbedd mi dinañ la def nu ñu def ameta lolu mom bëgg na ñi ñi xam ko. wax dëgg yalla jere jërëjëf message bi jàll na kon ñu wàcc. lu ñu neex mais da ngay gis ne carrément nekk ni ñom communiqué bi ñu génnee nii def nii fi mu toll nii

parce que mënul sax wax moom la woon ak kii nga xam ne ni moom lañ faat bakkanam ak ki nga xam ne ni carrément nekk ni fi mu toll tey jii tey moom moo nekk détention mais bu ñu waxee ne ni carrément nekk ni bi ñuy génn gars yi leen doon jéem a koj pour di leen jéem a kii ak affaire yooyu noonu waxuñu dëgg kenn amu ci woon sañ-sañu taxaw benn moment di leen expliquer ak yooyu noonu parce que lépp rek mën na ko doon calmer booy yi pour que ñu bañ def que xam nañ tamit maanaam yoon ni muy demee amu kenn taxaw ci kanam oto bi amul kenn ku bàyyi xel ci oto beeg yooyu noonu pour di ci wax wala di ci jéem wala di ci def leneen ak leneen donc li ci am solo mooy que ni carrément ne li nga xam ne ni carrément ne waroon nañ ko def def nañ ko ci li nga xam ne ni carrément waroon nañ ko cee dox dox nañ ko ci incha allahu rabi comme ni ko waxee nii rek sant yàlla la aussi tamit ba ñu récupéré waat dossier bi ci ñoom xam nga ba yeggal ko fi ñu ko war a yeggal te incha allahu rabi ndam rek lañ ci jàpp ndam rek lañ